salaamaaleykum mbokk internet yu safo di seetaan ak déglu euh, seen chaîne bu mag bi di SENactu 7 tey nag euh, waxtu yi ñu toll nag euh, nakar ak tiis lañ leen ñëw daal di indil ci ki nga xamante ni moom moo di ab taskatu xibaar di wuyoo ci turu Boubacar Camara la yëg leen ni nag daanaka wàcc na liggéey fële ca l'hôpital principal waaye nag ñi nga xamante ni ñoom di ay waajuram nag ñoom nag xamuñu woon sax ni que il était la là-bas ci jamono ji nag waa hôpital principal nag ñu ngi sàkku ñu wéyale bi la information ngir képp koo xamante nak am nga ay information si eh, jëmm ji di eh, Boubacar eh, Camara nga daal di leen koy yeggee ngir rek seen ay wéyjo mën na jot ci li nga xamante ni moo di kooram di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko jéggal xaare ko àjjana suuf seet ci kawam di ñaan yéen ci ni ngeen xamante nak yéen a faral di topp seen chaîne bu mag bi di actu 7 ngeen wéy di abonné di activer cloche notification yi ngir nga xamante benn information du leen rëcc